service mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey ci restaurant bi ba boolee catégorie yépp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci restaurant bi mooy service waiter benn la ci service yi mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey mooy ku góor gi waiter waiter waitress waitress mooy Cerberus bi nga xam ne mooy ku jigéen ki kon moom tamit si Cerberus la bokk cook cook mooy kiy togg en même temps mooy verbe bi cook mooy togg chef chef moom mooy yor responsabilité lépp lu jëm ci restaurant bi mooy shave ok client client mooy client customer customer ba léegi mooy client mais ki doog a jëndee ci yow tey kooku moom mooy customer ki nga xam ne saa su ne mooy jënd si yow mooy client. let's go inside nañu dem si biir let's go inside ñu dem si biir ñuy xool yan vocabulaire la am ci biir. restaurant reservation reservation reservation. drink drink drink mooy naan food food food mooy ñam bi mais eat mooy lekk hot water hot water hot mooy ndox bu tàng cold water mooy contraire bi mooy ndox bu sedd cold water moom nag sedd bu ndox lay wax mais ndox bu sedd the menu mooy liste bi def liñ togg lu am ci restaurant bi biñ koy def pay by credit mooy faye ci sa carte crédit I would like to pay by my credit card mooy boo fayee wéccet buy des nga xam ne doo ko jëlaat discern discern mooy déchirer yenn ñam yi nga xam ne boo lekkee ba pare mën nga ko ci teg order order mooy demande mooy sa recommandation mooy li nga soxla dinner dinner mooy reer dinner lunch lunch mooy añ lunch breakfast breakfast mooy ndékke recommend recommend mooy recommander bu ma ne would you like to recommend what would you like to recommend lan nga bëgg lan nga bëgg fresh food fresh food mooy fruit rek mooy fruit lépp loo xam ne dafa tooy ñu koy lekk hot hot mooy lu tàng moo tax amoon nañ hot water muy ndox bu tàng hot mooy lu tàng miit miit mooy yàpp mooy ndawal miit meal meal mooy mooy repas ok kitchen kitchen kitchen mooy waañ bi toilet toilet mooy toilet toilet where is the toilet ana toilet bi the check check mook mooy chèque moom ak facture benn lañu